la revue de presse de Souleymane Ndiaye yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye. dal leen ak jàmm tey dañ koy door ak yéenekaay bi di Vox Populi yéenekaay bi di Vox Populi di wax ne tey mooy bés bi nga xamante ne la nit ñi war a jot seen fiche de parenage yu leen may ñu mën a uti ji nag euh, parrainage ci euh, dëkk yi wuute ak ci quartier yeeg yëpp yu bari biir Sénégal. Tahirou Sarr moom mu ngay wax ci yéenekaay bi di yor-yor mu ne maki Sall veut nous priver de Ousmane Sonko. le vrai président préparé par les sénégalais loolu Tahirou Sarr moo ko ci yéenekaay bi di yor yor yor yéenekaay bi di la point moom di wax ci ki nga xamante ne moom mooy euh, moor Ngom Mor Ngom nag nee na pare na pour jox Amadou Ba victoire pare na pour jox Amadou Ba victoire yéenekaay bi di la peuple moom di wane nataalu euh, Aliou Nguy Ndiaye di wax ne Aliou Nguy Ndiaye ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ñu ngi tëgg front bu mag pour jàkkaarloog Amadou Ba waaye pour jot ci réew mi yéenekaay bi di La Tribune moom Mbaye Cissé mu ngay wax ci euh, li nga xam ne nii nee jàpp na ne Macky Sall dafa défier kii di euh, la CEDEAO ci li la CEDEAO wax ci parenage Macky Sall dafa taxaw doxalee ko neneen lu bokkut ak li nga xam ne ni charte yi nga xam ne moom la CEDEAO wax maanaam Macky Sall dafa défier ki nga xam ne mooy CEDEAO enquête yéenekaay moom tey mu ngi wone nataalu Amadou Ba ak yeneen ñi yeneen candidat yi nga xamante ne nii ginnaaw bi président Macky Sall joxoñee Amadou Ka ñooñ dañu taxaw ne dañu ñoom ay candidat dañu ñu yéenekaay bi bind la guerre de tranché ah lii de moo am yéenekaay bi di deux minutes moom dafa samp laaj euh, laaj bi mu samp mooy ne ndax sunu sëriñ yi léegi mën nañoo seen consigne de vote yi léegi nit ñi mën na tax kandi nit ñi wotel candidat bi nga xam ne moom la ñu se moom la seen sëriñ bëgg est-ce que sëriñ si léegi amati nañ poids boobu loolu laaj bu samp boo xamante ne nii deux minutes moo ko def di laajte ndax est-ce que ku sa sëriñ wax ne diw laay wotal dana tax yow nga wotal kooku. Vox Populi moom Aliou Ndiaye mu ngay gën a dëggal candidature am waaye tamit euh, Vox Populi mu wax ci démarrage su parrainage yi tey tey ji nga xamante ne nii bu ginnaaw bu nit jotee seen fiche yi ci dañu war a dugg ci biir dëkk bi euh, Euh, seeti leader bu nekk seeti ki koo parrainé ndax moo dem ci élection présidentielle yi. yéen kaay bi di antenne moom euh, kii di Antoine Félix Diome mu ngay mu ngay dànkaafu ñi nga xamante ne nii ñooy yëkk lu mel ne xamee ñii di sunu kilifa diine ak ñi nga xam ne ñoo leen di gaaruwaale nee na képp koo xamante ne nii ràññee la nañ la nga nekk nga bokk ci ñi nga xam ne yaay attaqué kilifa diine yi dinañ jàkkaarloog yow loolu Antoine Félix Diome moo ko wax ci. yéenekaay bi di lan antenne yéenekaay bi di bés bi moom ñu ngay wane ah, nataalu Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye mu ngay wax ne mu ngay waxtaan ak Boun Abdallah Dionne bu baax a baax a baax pour benn coalition mu ngi waxtaan pour tëgg benn coalition ginnaaw bi Macky Sall euh, ba mu jógee ci États-Unis wax yam mu yëg kàddu yi mu yëkkati woon ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci biir parti bi te bañ a euh, respecté yéenekaay bi di direct news moom di wax ne dëkk bi di France France moo ñàkk na terrain bu baax a baax a baax ci biir Afrique lii yéenekaay bi di direct news moom moo ko xamle nee na France moom ñàkk na terrain biir Afrique bu baax a baax a baax. mu nekkoon seen revue de presse ngeen àndoon ci ak Souleymane Ndiaye ñu ngi leen di jaajëfal bu suba ak jàmm. la revue de presse de Souleymane Ndiaye yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye.